asalaamaaleykum mbokk yi ñuy topp ci cours bi di HTML ak CSS ci plateforme bi di Khan Mentor nañ ci seen fukkeelu vidéo ak benn euh, ngir waxtaane maanaam euh, li nga xam ne moom mooy yi ak paragraphe ci HTML ak CSS ba kon niñ ko gisee woon ci yeneen cours yi kon chapitre 11 bi ñaar yooyu rek lay jàngale mooy lan mooy titre ak lan mooy paragraphe donte am na sax luñ ci jotoon na xamle tuuti kon ci cours bi dinañ découvrir lan yan élément ñoom ñooy tax ñu mën a am ay paragraphe ak ay titre ci HTML waaye fàttali itam lan mooy maanaam rôlu HTML waaye tamit xam wute gi am ci titre yi maanaam title ak ak HA ndax yépp ay titre lañ leen di woowe kon ci misaal ñu jël exemple bi ñu mujjoon a am xara ñu liñ soxlawul ba am kon page HTML bu simple boo xam ne ok lii ab page boo xam ne euh, boo xoolee euh, méta bi rek lañ ci def mooy encodage UTF-8 bi ak benn titre maanaam title bi foo ko gisee mooy titre page bi maanaam page bi soo ko ibbee par exemple page bi ma enregistré ko def fichier enregistré sous ma tuddee ko par exemple chapitre onze point html par exemple ma tuddee ko chapitre onze point html donc fii suma ma ci bureau bi chapitre onze ma double cliquer ibbi gis nga page bi ci kaw nii je suis le titre gis nga moo nekk nii donc loolu moom laa bindoon fii donc toujours page bi ci kaw kaw ci kaw navigateur bi nga gis ne titre bi nga def fii moom mooy affiché kon fii ci kaw je suis le titre mën naa changer ah ma def voici le titre de la page ma enregistré lii après ma actualiser donc su ma gisee voici le titre de la page kon loolu mooy titre boobu loolu bokkul ak yeneen titre yi nga xam ne ay H1 H2 et cetera yooyu ay ay yeneen façon titre la yoo xam ne pour boo doon def bind document nga ngay def ay titre titre de de par exemple bii xoolal par exemple ma def h ma daal di fermer H1 bi ndax balise beer la donc fii ma def titre de niveau de niveau 1 bu mag la koy def donc ma enregistré su ma ñuy actualiser gis nga fii mu defal ma titre de niveau donc non seulement taille texte fi dafa rëy waaye daf ko def en gras léegi xaar ñu jël benn bu ñuy wax H2 H2 damay copier ñëw coller donc fii ma def titre de niveau 2 enregistré ñëw actualiser gis nga bii moo gën a dama fàtte fii H2 laa war a def fii H2 H2 enregistré donc gis ne waaw ah, kay kon bi moo gën a tuuti bi parce que bii taille bi bii titre H1 la alors que bii titre H2 la dañu dem xool H3 dinañ xool H3 H3 H3 am niveau 3 ñu xool ba tey taay bi mooy xaw a gën a ndaw ko H2 gis nga H3 nii lay mel donc ñu xool H4 ñu xool H4 titre niveau 4 h4 slash h4 donc titre niveau 4 enregistré h4 nii lay toll donc tout le temps day gën a texte yi day gën a wàññeeku donc xool h5 h6 h5 h5 ak H6 donc yii mooy maanaam yi nga xam ni moo am ci titre yi donc H1 la commencé ba H6 donc H1 mooy gën a rëy mais sooy konne day gën a tuuti H2 moo gën a ndaw H1 h a ndaw H2 H4 gën a ndaw H3 mo 5 moo gën a ndaw H4 donc su ma ñëwee donc nii la nii la euh, kon yi mooy titre yi ñu bañ a jaawale kon titre de texte yi ak titre de page nga xam te balise title bi moom moo moom mooy tax ñu mën ko donc paragraphe tamit bu paragraphe yi même chose balise bi ma leen waxoon ni mooy tax nga mën a créer paragraphe kon balise P la donc balise baa ngi nii P ngay def donc slash p ok ci diggante bi nag nga def paragraphe bi nga bëgg paragraphe zéro par exemple mooy premier paragraphe bi mën nga créer waat beneen paragraphe paragraphe un paragraphe deux ñu xool donc ci page HTML mën nga am paragraphe yu yu bari amul limite donc gis nga paragraphe zéro paragraphe un paragraphe deux su ma nekkoon sax ñëw fu ma nekk ci biir code bi par exemple fii ma ñëw créer fi benn paragraphe tuddee ko paragraphe trois par exemple yaay xool fu la neex rek nga créer fa ay paragraphe donc su ma ñëwee donc da gis ni fii paragraphe trois donc kon loolu mooy paragraphe ak titre titre yi ñu différencier kon paragraphe balise B mooy tax nga man ko am mais bu dee titre de texte yi H1 ba h la bu dee title bii nag moom mooy titre page bi nga xam ne mooy affiché saa yoo ubbee navigateur bi kon ci kaw ko kon loolu mooy li ñu la indiloon ci tey bii bu doon jàngale lan mooy euh, titre ak lan mooy paragraphe ak lan mooy différence entre titre de page ak titre de texte. kon yooyu lañ leen indiloon tey ci seen onzième cours HTML ñu leen jox daje kon ci beneen vidéo ci seen plateforme bi di Akan Mentor